Sonko dafa jaayoon Sénégalais lu leer parce que bu ñuy wax Sonko parce que moom que moo nekk en relief si ce qui se passe parce que moom jëmm moo tax Sénégalais yu bëri vote régime bi fi nekk te Sonko dafa jaayoon Sénégalais yi toogoon jàkkaloo Sénégalais yépp place de si génn benn livre ngeen ni ko sànq tudd solution mu ne maa yor solution bi sénégal yu bëri gëmoon ne moo yor solution bi parce que yàgg naa koo fi nee naa leen nañuy analyser Ousmane Sonko bokkut dañuy analyser Macky Sall ak Abdoulaye Wade parce que moom dafa toogoon génn benn livre ne maa yor solution bi ndaw ñi wóolu ko expatriés yi ñu nekk diaspora bi wóolu ko ñu bëree ba si réew mi wóolu ko ba votel ko mais apparement ba mu faloo ba léegi maanaam bi nguuram faloo bi parti mu faloo ba léegi apparemment yàq des problème dafa mel ne comme livre solution boobu dafa transforme nekk ay problème jafe-jafe si yi jafe-jafe si jakarta yi jafe-jafe si li nga xamante ne mooy administration bi. jafe-jafe jafe-jafe est-ce que tam problème yooyu tam ko fi. mais de toute façon fi mu toll nii mënatoo mais mais mais mënatoo xam nga tamit. il faut il faut pas ñuy dugg si gargaar fii jóge na fii. Mhm. régime Benno mhm. fois di wax Macky Sall Macky Sall il est temps que ñu jël suñu responsabilité ne. Mhm. ñoom ñoo fi nekk nañuy jël seeni responsabilité ma ne ndaw ñi déguerpissement bi dafa bokkoon ci li nga xamante ne mooy nguuru Bassirou Diomaye Faye ma ne problème mu ambulant maan yi nga xamante ni nga gis nga ngi commencé génn ak Jakarta maa ni si nguuru Bassirou Diomaye fay la bokk ma ne parce que ñoom dañoo andi woon benn livre boo xamante ne dañ koo jaay muy solution te ñu bëri dañoo gëmul man ñii di wax ni damoon naa ba benn instant nee naa man mbaa du ñii bu ñëwee mooy andi solution est-ce que pourquoi pas kon ñu jëm leen a gëm léegi ba ñëwee ba léegi dañ def constat mooy yàq des problèmes xanaa gisoo si réseaux sociaux yi nit ñi découragement bi ñi nga xamante mooy déception bi ñi nga xamante ñoo dis ils sont ils loolu nag du lu ñu inventé lu fi am la il faut qu'ils prennent les responsabilités ma ne man j'ai comme l'impression li may wax nag man damay wax parce que dëgg moom a ñor j'ai comme l'impression que nguur yi àgg àgg si nguur ma ne ñëw oo pale dafay suul ndaanaanu passif j'ai comme l'impression que nekk si nguur day suul ndaanaanu passif parce que ñoom dañoo jaay ñu kese lañ amoon ana Ngagne Demba Touré man déggatuma ko xanaa moom amatu xalaat si xale yi ana ki nga mooy euh, ki nga xamante ne mooy Dame Mbodj foog duñ gis da doon wax si ndaw ñi si jeunesse bi si dëgg bi gisatuma ko. déggatuma ko léegi dafa am liggéey mu ngi liggéey. waa léegi waa léegi nga am liggéey te doo jëm a andi ay pexe pour ndaw ñi am liggéey yi nga am liggéey El Malick da daan toog di wax. pour ndaw ñi di ko gëm ni ñoom ñooy solution bi nga am liggéey te doon jéem a liggéey pour am ne ndaw ñi ay liggéey ma ne wallaahi dafa mel ne comme j'ai ah, comme l'impression que dama ne nguur gi day suul ndaaraanu passif te loolu du yoon li may wax nag ndaw ñu bëri si passé gis nañ ni tey ñan ñoo àndaloon dafa mel ne comme dañu leen a soppi andi ñeneen dafa mel ne kon Ousmane Sonko ba nekkoon opposant ak Ousmane Sonko ba ñëw au pouvoir dañoo soppi Ousmane Sonko andi beneen Ousmane Sonko ma ne beneen bi aussi mooy gis nga euh, président Lamine Gueye am na benn cas dañ ko war a wax gis nga Sénégal wàllum parparloo partisanerie dafa dem ba influent si li nga xamante mooy wàllum xëyu ndaw ñi hmm. tey boo farul fenn boo deful nang dëgg doo amul liggéey si réew Sénégal boo farul fenn et c' est dommage que li doon raam dem ba si ñag ba mooy ñu dem ba gëmloo nañu faral fenn boo farul si ñun liggéey doo ko gaaw am ña ñuy fal tey ay partisans lañ ay sympathisants lañ tey bu ñu defoon appel à candidature Lamine Gueye ce sera l'occasion pour montrer à tous les Sénégalais de la diaspora comme de l' étranger que bien vrai que ñun sommes la pour vous offrir de la du travail et que ñu ngi fi pour li nga xamante ne mooy la ñu waxoon mooy ku nekk sénégalais foo mënti nekk nekkal Singapour nekkal Chicago nekkal Paris nekkal Londres boo amee xam-xam ñëwal nga andi ko ñu jox la liggéey nga liggéey Sénégal kan moo gis appel à candidature tey li ñuy fal nii kan moo fi nekk koo xamante ne doon compte tey ñi ngi nekkoon si administration sénégalaise jamonoy Macky Sall amul ñu am xam-xam boo xamante ne si seen xam-xam mënuñu fa bàyyi ma ne xam naa suñu ma xam ñoo xamante ne boo defoon appel ak kàddu lañ leen fal am na ku leen ko gën a xam benn talib sow benn talib sow luñ ko fal benn talib sow luñ ko fal boo defoon appel ak kàddu gëm nga ni dina dem foofu Ousmane Diagne luñ ko fal te liñ ko fal li gën a garaaw mooy Ousmane Diagne liñ ko fal mooy boo defoon appel ak kàddu dina am ku ëpp expérience ku ko mënoon a yor koo xamante ne moom wóor na la ne liñ ko fal day laaj expérience dafay laaj li nga xam mooy parcours am na ku ko mënoon yor si réew Sénégal. man mii di wax ak yow man mii di wax ak yow bu ma coupé foofu man mii di aussi tam am na yenn poste yoo xamante ne euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoom la ñu cheminandoo ensemble quand même war nañu am dañ sañ sañ daal di leen jël hmm. tànn ñi nga xamante ne ñoom la ñu liggéey waaw léegi président président ba mu faloo il n'est plus président d'un parti non loolu on a discuté pas xaaral ma daana nga comprendre ma bëgg wax président Diomaye Faye ba ñu ko falee hmm. nekkatul ay waa Pastef ak ñu ñu xam nga la ñu mooy président de tous les sénégalais ñu war a def li nga xamante ne mooy képp ku am xam-xam foo mënti nekk dekk doomu Sénégal andil sa xam-xam pour que nga jëriñoo et loolu ma ne nekkoon na si appel à candidature. waaw wax nañ ko. ma ne bu fekkoon ne appel à candidature am na man personnellement ñu nekk si diaspora bi ñu bëree bëri mënu ma woo nañ ma man def nañ ma si ñu si sama téléphone ne ma ñoom dañoo ñëw parce que dañoo jàngi woon bitim réew. amoon yaakaar si li nga xamante ne mooy nguur gi fi nekk muy euh, bu euh, Diomaye fay ak Sonko que ñoom bu leen woowee ñu génn seen i parce que dañoo bëgg liggéey fii ma ne am naa ay pos yu ñu joxe du ma lim ay tur maanaam moo xam wàllum santé moo xam wàllum économie wàllum li nga xamante ne mooy yenn agence yi am na ñoo xamante ñoo jàngee Lyon jàngee Canada jàngee Angleterre dañoo ne ñoom dañoo ñëwoon si andi seen CV pour xaar ñu woo leen waaye léegi lu tax farlu ñu leen loolu laa bëgg a daanale mooy parce que soo farlu si ñoom dun la jéem a jox poste loolu dafa dem ba daal bokk Sénégal xoolal entreprise yi xoolal entreprise yi nga xam ne mooy privé yi bu ma contrer DG bi boo defu nanga dëgg ñu dàq ma su ma yi li nga xamante ne mooy li ñuy doxal si administration bi su ma defu nanga dëgg ñu dàq ma waxuma contre nag contre administration nu muy demee mais politiquement bu fekkee ne man ànduma moom gëm-gëmam politiquement bu fekkee bokkuñu vision boo defu nanga dëgg ñu ne ma reste chez toi très bien Sénégal léegi xamul lu doy ah, bi sax. Mhm. léegi dafa dafa bokk wàllum politique ba am léegi politique bi dafa am influence si wàllum xëy bi. soo fekkee ne yow da ngaa nekk opposant dañ lay mettre à l'écart bu fekkee ne tu es partisan dana la woo jox la benn poste. très bien pour euh, Ibrahima euh, concernant peut-être euh, aujourd'hui taxawaayu les autorités ngir li nga xamante ne moom moo di jëm ci wàllub taux chômage bi mën a wàññeeku bu baax a baax. ah taxawaay bi kañ mooy ñu gën a bàyyiwaat xel li ñu diggee woon ñoom avant ñu yegg si au pouvoir ils avaient donné des axes ak ay paramètres. yoo xam ne ñoom dañ ñëwoon bu ñu yegsee rek automatiquement dañ koy commencé exécuter mhm. bu ñuy wax tey jii euh, borom salaire yu néew yi mais société intérim yi ñu ngi rey Sénégalais yu bari boo demee ci banque yi caissières yu bari yi ci banque yi ñu ci bari ils sont recrutés par les sociétés d'intérim banques yi recruté wuñu leen direct. Mhm. ñoom dañuy yóbbu seeni CV ci société d'intérim yi banque yi contacté société d'intérim yi ñu àndi leen fa bu dee salaire cinq cent mille la wala trois cent mille société bi xaaj ko xaajaat mhm. banque yu bari loolu ñuy def même yu nekkul banque également ci yenn structures yi mhm. moo tax ma ne la banque ci gën a tuuti mhm. c'est pour dire que actuellement les sociétés d'intérim son en train de tuer uh-huh. les travailleurs sénégalais parce que lan entreprise yu mag yi nga xam ne ñoo war a jël léegi amatuñu courage pour mun a signer contrat yi ngay wax CDD ak CDI des contrats en bonne dafa nu muy àndal day ànd ak allocation familial day ànd ak cotisation IPRES day ànd ak IPM yow sa soxna ak say doom boo feebaree quatre-vingt pour cent day ànd ak car plan si tu es un cadre quatre-vingt pour cent da nga euh, société bee koy fay vingt pour cent nga fi jolal sa oto condition yooyu nga xam ne moom mooy permettre yow agent bi salaire bi ñu lay fay war laa mën a jariñ conditions yi amatul benn société privée wala boo xamante ne war nga ko pare nañ pour fay ko moo tax dañuy préféré jaar société intérim yi et loolu inspection du travail da ci am rôle bu mu war a jouer boo demee ci grande surface yi mais salaire yi ñu defee c'est des salaires précaires même bu ñuy wax le manque d'emploi mu ngi wàññeeku somage baa ngi yokk même bu ñu koy wax mais nañu waxaale ñi nga xamante ne chemin wuñu mais la ñuy fayeku dem toog seen kër ko gën. la précarité. njom ak ngor moo leen tax a toog mooy la précarité en deux mille vingt deux deux mille vingt trois ba bi mille vingt quatre bii na ci loo xam ne bureau international du travail waxoon na ci. Mhm. index ci Sénégal. en mille vingt deux Sénégal deux mille vingt ba deux mille vingt et un ba deux mille vingt deux Sénégal moo nekkoon le cinquième pays bi gën a euh, euh, euh, non le quatrième ou le troisième pays bi gën a torox ci emploi. ñoo jëloon presque avant avant avant avant daare très bien te diggante boobu émeute yi amul donc condition bi nga ne moom la ñuy embaucher moom la ñuy recruter ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci barab bi ñuy liggéeye c' est le patron qui se bénéficie et les soi-disant cadres mais c'est ce qu'ils font la quasi quasi totalité l' émergence de ces mm-hmm. mais ils ont des salaires précaires agent sagam yi ngay gis ak agent sécurité yi ngay gis mbedd yi ñuy taxaw mais ils n'ont rien amuñu benn condition bu leen di permettre ñu am benn retraite bu ñu jëmee mag te booy liggéey nag da nga am benn âge boo boo fa tollee. dootoo ko mën a ti dootoo ko mooy tax ngay dem retraite retraite di jël sa pension comme ni nga naan kër yu bari pension yaa ko yor. Mm-hmm. waaye ñi nga xamante ne ñoom mosuñoo liggéey bay dugg ci retraite fu ñu jëm. très bien donc li may wax rek mooy. Mm-hmm.